asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof fii ci canal Galsen Tube le kanaal de youtubeurs vidéo tey bi nag day ñëw ci leeral lan mooy différence su compte personnel ak compte de marque waaw mooy seen différence seen différence nag lu simple la rek ci question de euh, bi ngay ubbi compte bi la compte bi nga xam ne moom nga njëkk bi toujours mooy sa compte personnel mais dañuy dem dugg ci compte yi pour explication yi ànd ak euh, ànd ak xool mu gën a leer ndaxte ñu bëri dañuy am euh, li nga xam ne mooy jafe-jafe ci loolu dañuy liir des fois compte de marque léegi ñu ne compte personnel te loolu dafay des fois jaxase seen xel ci affaire YouTube ñuy defee ne loolu dafay jouer impact ci seen monétisation ak yu demee noonu bala ñuy wax ci wàllu monétisation ci ñaari façon compte yi moom la ñuy mujjee ñu ñëw njëkk a ñëw ci différence bi Euh, boo xoolee compte bi canal bi ñoo ngi si Pape Mor Lo Galsen Tube xam nga fa lañ nekk muy canal normal bi nga xam ni moom la ñuy def vidéo YouTube yi compte bi lan la compte personnel la voilà compte bi compte personnel la lan mooy compte personnel compte personnel mooy boo ubbee YouTube créé nga Gmail ngay créer compte Gmail boo xam ne da nga def sa tour ak nga def sa sant nga def compte Gmail personnel nga def sa tour ak sa sant après sa information sa numéro téléphone fi nga dëkk yaa nga valider sa date de léegi nag compte boobu soo ci créer canal YouTube canal YouTube boobu compte personnel lay ne canal YouTube boobu toujours dalay lay nga dugal sa tur ak sa sant loolu mooy compte personnel voilà mooy canal YouTube bi nga xam ne moo ànd ak sa compte Gmail personnel bi nga ubbi mooy compte personnel fan lañ ko mën a xamee. ñoo ngi koy mën a xamee ci personalisation ñu dem ci personalisation nga xool ñu cliquer fii boo cliquer personnalisation nga ñëw xam nga dañoo cliquer personnal mooy ñu indi ñu direct su doon YouTube studio lañ dem dañuy ñëw fii cliquer personnalisation buñ paree lu ñuy def ñëw fii information général nga cliquer boo cliquer information général ji nga différence fi nga koy xamee fan la boo ñëwee fii turu canal bi gis nga si lu si yoon bu simple rek voilà pour mu bañ a compliqué moo gën a simple lu mu la defaral mi ngi nii prénom. ak nom comme bi ñu lay wan ni ñuy modifier titre canal doon nañ la ko junj fii prénom ak nom obligatoire loolu mooy compte na mark nga xam ni compte bi normalement nan laa ko waroon tuddee moor Lo parce que loolu mooy sama vrai tur bi nga xam ne moo nekk sama pièce muy Mor Lo noonu laa ko waroon tuddee wala ma def fii Pape Mor ñëw fii noo bi def sant bi ma def Lo mu jeex nga xam ni sama canal YouTube day nekk Pape moor Lo point final léegi nag YouTube. obligé wu la nga bind fi sa tur ak sa sant daf la defal daal en tout cas compte personnel la bindal sa tur bindal sa sant yaa xam nag sa tur nga fay bind wala turu jàmbur wala sant wala sant jàmbur wala leneen luy remplacer loolu comme compte personnel la te man compte bi dama ko bëgg dama ko créer pour Galsen Tube ma bind gal dama am na ay temps dama defoon gaal seen def fii Tube waaw su ma neexee ma def ko noonu ngam du collé parce que xam nga Galsen Tube bi collé wu ko mën naa def fii Galsen ma def fii Tube su ko defee jeex na day jàppee seen bi comme sama tur jàppee tub bi comme sama sant mu jeex loolu la koy tenir en compte voilà mais ji nga dama def fii sama tur Pape bi <clears throat> def Galsen tub waaw tiire bu bi dama ko fi yokk rek pour suy affiché dina diggante Pape Lo Galsen tub bi mu am tuuti tiire moom xam ñoo xam ne ñaari affaire yu jotul dara la voilà loolu la mais compte na ma compte personnel lii kase la mooy compte boo xam ni sa tur la ak sa sant point final waaw lii mooy compte personnel léegi ñu dem ci compte de marque buñ paree nañ soog la wax seen impact ci li nga xam ne mooy monétisation léegi buñ ñëwaatee fii ñu cliquer suñu logo xam nga e email bi ñaari compte lañ ci am deuxième compte boobu moom mooy tudd compte de marque nag léegi buñ cliquer logo bi ñëw fii def changer de compte boo cliquer ji nga email bi mu ngi nii papemorlo1 arobase gmail point com ci lañ créé seen Mobile ci lañ créé Galsen Tube Galsen Tube bi mooy compte personnel bi moom laa njëkk a ubbi après ma soog a ubbi Galsen Mobile muy compte de marque bi ñu connecté wu ci nga xool voilà bu Galsen Mobile bu ubbeekoo moo ngi nii Galsen Mobile xam nga dama ci doon fi ay cours moo tax personnalisation bi jeexul parce que canal bi lépp lu ma fi lu ma fi war a modifier rek dama ko war a filmer ci téléphone def ko ci kanaal canal seen Mobile pour ñu xam nuñ koy defee waaw ah, moo tax may maa ngi gëjoon dugal vidéo def na trois mois moo tax laalaatumu ko parce que lu ma fiy def rek dama ko war a filmer wane waale ko nuñ koy defee si mobile te uma woon temps pour continuer cours yi moo tax ma arrêté ko fi stand by ko en attendant léegi seen Mobile bi moom lan la moom compte de marque la lu tax parce que bi ma ubbee sama compte personnel bi muy Galsen Tube ba pare ma bëgg ubbi Galsen Mobile dew ma créé email bu bees tàq damaa jël même email yi muy pammorlo1 arobase gmail point com ma ubbi ci beneen deuxième compte deuxième compte boobu compte de marque la su ma ci ubbi doon troisième compte compte de marque lay nekk quatrième compte compte de marque dixième compte vingtième compte compte de nekk lu tax parce que compte personnel bi ci ci même adresse email benn kese lay nekk beneen compte boo ci ubbi beneen canal boo ubbi bu doon ba 100 canal ci même adresse email bi ay compte de marque la ñuy nekk voilà loolu mooy li ci am léegi ñu xool différence bi bu ñëwee personnalisation léegi ñu ñëw information générale bu ñu information générale yi nga turu canal mi ngi ni Galsen Mobile ñu cliquer ko bu ñu ko cliquer ji nga lu mu ñu defal dafa fi ay nom ak non yaa ngi gis daf la defal nom de la chaîne sa turu chaîne rek la defal jeex na voilà turu chaîne bi lan la gaal seen Mobile point final turu chaîne bi nag mun nga ko bind fii ba Caaroy Gaar voilà mun nga <laughs> la maanaam mun nga mu gudd parce que du du obligé wu ay tur ak sant daf la obligé sa marque maanaam marque bi dafa jàpp benn business boo yor la business boobu nag léegi turam ngay bind fii moo ndax fii moo fi nga ëppee liberté si turu canal que bu dee compte personnel ah fii nga ëppee liberté parce que defaru la ñaari benn case la yaa fi bind lu la neex ah noonu la noonu la la affaire bi bi bi defee def ñaari différence yi si turu canal yi lii la compte personnel mooy compte bi nga njëkk a ubbi ci adresse gmail bi ginnaaw bi nga ko créé adresse gmail personnel nga créé ko compte bi nga si njëkk ubbi mooy compte personnel yeneen compte yi nga si ubbiwaat yépp ci même adresse bi te changé woo ko moom mooy tudd ay compte de marque loolu mooy seen différence léegi nag compte de marque ak compte personnel ndax am nañ euh, différence ci wàllu monétisation amuñu benn différence ci wàllu monétisation amuñu benn différence ci wàllum paramétrage détail bi ñu la woon dong dong mooy seen différence ci wàllum paramétrage muy bii da ngay da ngay dugal sa tur canal kasa mu affiché fii bee tur ak sant jeex na mën nga déplacer compte personnel ci compte de marque mën nga déplacer compte de marque ci compte personnel jeex na mais loolu dafa am risque mooy mën nga supprimer sa vidéo yëpp option bu YouTube def la boo xam ni daanaka dafa desee am sens parce que suppression continue la voilà loolu mooy mais ci même bi mën na nekk voilà léegi. lii mooy li nga xamante ni moo ci nekk ñu bëri ñu si doon am jaaxle des fois am ku ne ah man daa am ku ne ma kat sa compte bi voilà du compte marque mënul monétiser man la dee du see dara monétisation moom yoonam newul ci monétisation xam moom lu muy lijjanti ndax matal nga 1000 abonnés matal nga mille heures activé nga say say vidéo ngay dugal soo nga envoyé demande ñu accepté ko def ay publicité ci say vidéo ñuy seetaan nga am sa AdSense yaa ngi gañ sa xaalis point final léegi compte de marque la compte personnel AdSense moom loolu yoonam nekku ci waaw j'espère que leer na sa monétisation moom lii amu ci benn influence lii mu ngi am influence ci canal bi ni nga koy defaree ci wàllum tour bi jeex na même ci paramétrage yi lépp benn la description mooy ci tegee lien yi moo ciy tegee sa email fi nga koy dugal yëpp yëpp yëpp yëpp ci canal bi teg identique teg teg waaw lépp ci canal YouTube bi compte démarre compte personnel lépp lañ bokkule ba mu des rek fi ngay ñëw di defee nooyi kese moo am différence nga xamee ko noonu kon lii mooy li nga xamante mooy différence bi nekk ci compte de marque ak compte personnel ci wàllum tur dong la voilà ci wàllum continue ci wàllum paramétrage lépp a kon vidéo bi fii lañ ko yemale ñëwoon di def ay leeral ci wàllum compte de marque compte personnel la woon euh, di leen sant leen gërëm seeraan bi ngeen ko doon seeraan di leen demander rek xam da nga tombé ci vidéo bi te abonné goo nga abonné